justice si ñooñu noonu. ñu mooy li état tey li mu def prévenir moo gën magu xamoon naa ko moo gën magu waxoon naa ko état c'est ce qu'il est en train de faire maintenant pour ces gens je crois que il faut vous le dis les États-Unis c'est le pays euh, où on parle de droits de l'homme mais Guantanamo. Guantanamo kooku Guantanamo vous vous rappelez de cela. loolu ngay loolu ngay invité autorités yi je pense qui se qui ont des cocktails Molotov ñëw ci kër jàmbur sotti ko mën a rey ay nit ñuy taal ay mosquée ñuy taal BRT ñooñu il mérite pas ñu juger leen dans le cadre de nos lois et règlements. maanaam il ne mérite pas de procès. non pour moi on doit les considérer comme des terroristes et on doit les poursuivre poursuivre leurs commanditaires et les mettre tous. xam nga début dictature la. nit ki ak lu mën def il a des lu mel noonu boo ko waxee tey ci nii euh, buñ ci demoon xëy na réew mi fiñ fiñ liñ ci bëgg duñ ko ci am. Mamadou ñii buñ leen toppee réew mi tàkk na imaginez. moo tax ngeen war def balaa terre yéen aussi. à votre niveau mais imaginez non non non ce que nous avons fait